galasi saar ñaar ba ñu ca tegee fukki at ak ñeent ànd naa ak barnabaas dellu yerusalem yóbbaale tiit dem naa fa ndax yàlla ma fa yebal ci kaw peeñu ba ma demee daje naa ak ñi ñu gën a fonk ca mbooloo ma ma wéetoo ak ñoom won xabaar bu baax bi may yégal ñi dul yewut ngir ragal sama coono démb mbaa tey neen te tiit mi ma gunge woon sax de li mu bokk ci xeetu grek taxul ñu sonal nu ci xarafal ko fekk na mbir moomu nekk coow ndax naafeq yi yoxoo ci suñu biir ak mébét mu bon ngir seet yaatu gi nu am ci yéesu Kirist ba fexe noo defaat ay jaam waaye yaatu lu nu leen benn yoon ngir dëggug xabaar bu baax bi mën a sax ci yéen waaye ñi ñu gën a fonk ak lu mën a doon seen sag xooluma ko ñépp a fa kanam yàlla waaye yoon ñu teg njiit bokk bi ma dajee ak ñoom yokkuñu dara ci sama sas gis nañu ne yàlla nu yebal muy man di piyeer ngir ñu yégle xabaar bu baax bi ma féetewoo ñu dul yawut piyeer féetewoo yawut yi ndaxte ni yàlla jëfe ci piyeer miy ndawam ci yawut yi noonu la jëfe ci man may ndawam ci ñu dul yawut te saak sefaas ak yowaana nag ni ñu teg kenuy mbooloo mi bi ñu ràññee yen bi ma yàlla jagleel ci yiwam ñu fekk sinu ci ba jox nu loxo man ak barnabaas ñuy liggéey ca ñedul yawut ñoom ñuy liggéey ca yawut ya li ñu doon laaj rekk moo di ñuy fàttaliku seen aji néew doole yi fekk sax laxase woon naa ci def ko waaye bi sefaas ñëwee dëkku antiyos yedd naa ko ci kanamu ñépp ndaxte li mu def jaaduwul ndaxte laata ndaw yi saak yónni di ñëw da daan bokk di lekk ak ñi dul yewuut waaye bi ñuy agsee te mu ragal kuréel boobu fay faydal xaraf mu dellu gannaaw di sori ñi dul yewuut yeneen yewuut yi daldi ànd ak sefaas ci naafeqam ba yóbbaale sax barnabaas bi ma seetee nag ne awuñu woon ci dëgg gi xabaar bu baax bi di jàngale ma yedd safaas ci kanamu ñépp ne ko yow mi yewuut ginnaaw dëddu nga aada yawut yi ba dund ni ku dul yawut lu tax nga bëgg sëf diine yawut ñi dul yawut nun dañoo ca sànnoo ci xeetu yawut te bokkuñu ci xeet yi xamul yàlla tey bàkkaar teewul nu xam ne yàlla du àtte kenn ni ku jub ci kaw sàmm yoon waaye ci gëm yéesu kirist kon nun itam gëm nanu kirist yéesu ngir yàlla àtte nu jub ci kaw gëm kirist te du ci sàmm yoon ndaxte du caageenuk sàmm yoon mooy tax yàlla àtte kenn ni ku waaye ba tey su fekkee ne nu ngi wut jub ci kaw gëm kirist fekk nu ne fànn di ay bàkkaarkat ndax na kirist moo sas bàkkaar mukk waaye su ma delloo di sàmm ndigali yoon yi ma bàyyi dëgg-dëgg dinaa wone noonu ne moykatu yoon wi laa ci lu jëm ci yoonu musaa dee naa fekk yoon wi ci boppam moo ko waral ngir ma mën a dund ba amal njariñ yàlla daajaale nañu ma ak kirist ca bant ba te noonu du man maay dundati waaye kirist mooy dund ci man dund mbindeef gi may dund nag maa ngi koy dund ci gëm doomu yàlla ji moom mi ma bëgg ba joxe bakkanam ngir man du duma neenal yiwu yàlla ndaxte su sàmm yoon doon taxaju a fa kanam yàlla kon kirist dee na ci neen